le moment pour le moment li war a wax mooy ci ki jógee di féliciter Mansour di féliciter Lac de waaw ci maanaam en tant que mbër quoi waaw nit la boo xamante ne lu mu sekkul lañ sekku jeex na jeex na ok di leen ñaanal jàmm waaw di wax ne man question yi nga xamante ne tey si fii ma toog nii ci loolu laa gën a mën mm-hmm. wax si mais li nga xamante ne mooy combat boo xamante ñëwagul wala kàllaa wala bëri non loolu da ngeen dem ngeen laaj waaw parce que moom rek laaj déglu quoi. man dafa am lu ñu bëggoon laaj rek par rapport ak xam nga combat bi parce que lamb saa amee rek ku nekk dina am noo koy jàngatee ñii dañ doon wax ne Siteu dooleem mayeeku ko mu bëree ténor yi am na ñu bëri ñu doon wax loolu parce que xëy na sa masse lak yu mel ni kii noonu mais gis nañ ne bëri nga ñaari ténor wala sax mën nañ ko tuddee ndax Zarko du mbër mu ndaw. Papa Sow tamit ñu ngi koy jaar bu baax baax léegi nekkatul mbër mais ku ne xam ne nekkul mbër mu ndaw Lac de Guiers 2 mi waxi noppi Lac de Guiers 2 la gagné par avertissement Siteu bi muy dégg loolu ndax loolu moo ko poussé woon mu liggéey à ce que bu ñëwee ci bés boobu lu mënti xew même bu ñu koy gagné tamit des ko jàpp daane ko ci wal bi gàng waaw côté boobu li ma ciy wax mooy doole doole bëre mhm. doole moo ci gën a tuuti doole gën a tuuti ci bëre waaw. lu tax loolu. parce que xam-xam moo si njëkk technique. technique waaw. technique bi ma njëkk te tey loolu wane naa ko man sa baaraam sa benn baaraam bu mag sa bu ma jàppee damay bëri fu man dama la si daan waaw parce que loolu mooy technique après puissance yi soog a ñëw. Hmm. puissance nag loolu yax la nit ki mun na ko am mun na ko bañ a mais ñi ngay jëflante boo ko amee boo ko amul ñoom xam nañ waaw man fi ma yegg si caaxaan ci ñëw ma fii. waaw te Lac de Guiers pour l'instant dama koy joxaat li nga xamante ne moom la moomoon ci man muy mag muy nit boo xamante ne d'ailleurs bu muy loolu la ko mais làmb moo moo nekk loo xam ne xëy na boo leen xasee ba signé rek waaw day tàng xam lu ma la bi mais man sama gëm-gëm ak sama vision mooy man amul mbër bi bëri si arène bi boo xamante ne yow góobu dama lay daan <laughs> voilà gëm-gëm boobu moo nekk ci man moom laa doxalee ba tey te keroog loolu laa wane te combat bi gis ngeen ni gis ngeen ni ci xew waaw li ci xew ñëpp gis nañ ko ñun lépp lu ñu war a def def nañ ko man def naa ko boobu man loolu laa waaw li ma waxoon def naa ko bëri naa xeex naa waaw mais tey victoire bi mu amee du question nag dama sàllal victoire yi jàmbur mais man ba léegi man gëwuma dama daanu gëwuma ko waaw parce que gëwuma ko mooy avertissement bi ma jox ma am ko te ma méritoo man dama gis ne avertissement boobu c'est la même chose là man fi ma doon séntu mooy dañuy dem prolongation ok man sama puissance la waaw man foofu laa ko da ngaa nangul défaite bi quoi. non du question défaite mu amu fii défaite amu fii da nga naan lenn moo am mooy la guerre waaw loolu CNG nangu na ko mais man laa wax man nangu ma damay daan parce que bu ma ko nangoo tëdd naa bu yàgg hmm? waaw dama bañ ba tey hmm. waaw. am na solo ajo fat mag nit day yaakaar gëm-gëm kese laay waree mais dama ci boole mën-mën waaw ak nangu nangu nag mooy topp sa ginnaaw wax ju topp say ginnaaw mag say ginnaaw staff mag sa yeneen kilifa yi ma yor ak samay xarit bu mën defar ma dem bàyyi ma bàyyi loolu moo ma indi xam nga ma fi de waaw. Ah, beneen bi beneen ba tey coow lu bari ñu bari ko wax Siteu ñun lay chercher du combat ñu gis Siteu ñoom imposé ko am na benn instant boo xam te yaa ngi koy def de guerre ba waxat ko ne ko ñëwoon na si sama paquet nag laa ci def est-ce que tey lii boo jaay ko ko ak ak la moo la poussé tey ba nga dem ko sa combat ak ak parce que ñu bari dañoo yaakaar ne combat bi neen day demee dañ ñu gis léegi Siteu lan dafa am loo xam ne yokk ci diggante bi wala Siteu jàng nag moo wax la benn affaire man gëm-gëm bi may doxee man dégguma sax li ñuy wax man wax dëgg fa yàlla xaw ma lu ñuy wax mais man yow man su ma xoolee samay famille xam ne làmb rek moom may teral pour ma teralee yow loolu daf may jaral chaque jour damay gën a yokk maanaam dama la wax ne làmb ji dama la ne góor bu fi ñeem muy ma te nee naa la li ma fi dugal seen biir génnewu ma waaw loolu nag laay wax mais tey dama bëgg maanaam CNG bi CNG bi ñu gën a joxaat bu bëri seen dayoo gën a toppaat làmb parce que tey boo xoolee combat bi keroog même arbitre yi doon arbitre sax yaakaar nañ làmb ji du am sax 3 minutes waaw sérieux dëgg rek moo neex yàlla parce que tellement dañ ma doon yàqamti loolu lépp te man boobu maa ngi def tepp-tepp du ma leen sax dëgg wallaay parce que sama yoon laa nekk mais bi ma bëree ñoom xeetu bëree bi ma bëree maanaam jaaxal lee sax moo tax sax yow li ñu war a toog sa tooguñu ko mais man ak Lac de Guiers bëre bu rafet lañ bëri voilà bëre bu rafet lañ bëri te man chaque jour damay joxe mais man dama am fu ma yem dama am conseil lamb ji dama ñëw ak conseil ñëwuma ak sama sama philosophie ñëw rek bëgg a def ñëw noonu dama ñëw ànd ak samay conseil ñu ne ko fii nga ma yem foofu ok man def naa lépp lu war a def lépp lu ma war a def man nit ñi gis nañ ko def naa mais wane naa fulla wane naa njàmbaar wane naa gëm parce que nit ñi duñ topp sa ginnaaw te de kooku doo gëm sa waaw loolu moom wane naa moom jeex tàkk waaw di am mbégte si li ma bëree man am ci fierté waaw. Fallou jaay jaay si maa ngi nuyu baax di la siyaar dama dégg sànq nga ne nangu boo ci def moom la la te dañu gis ne règlement wala daal ah, comme Balla Gaye ni mu daanee moom moo doon li mu daane ba pour man pour bu ma daanee mbër noonu waaw ñaanu ko yàlla man xeeti bëri bu may bëree man nekkuma sax mbër yooyu man mosuma nii sama laaj man nekkuma mbër yoo xamante ne mbër boo xam ne da ngay attaqué gum ni may attaqué lamb ji day jeex waaw loolu la mais dama la ne bañu ma jëlli bii dama la ne bañuma ma ko nee naa la aussi tamit salteeluma ko moom lan de guerre li ñu ko jox mais dama la ne man man personnel fi ma taxawoon dëggal samay tàng suul sama ndengeen sama yaram noo jógewuma fa ba léegi maa ngi foofu parce que dama gëm ne moom tamit dafa am avertissement waaw parce que boo xoolee man ak moom moom fi ma attaqué ba ci côté saaku yi ma gis ne am naa opportunité dama ko naax génne ko waaw mais loolu avertissement la man bi may bëree fi ñu arbitré vingt minutes fi ñuy sifflé vingt minutes foofu lépp man maa ko def foofu avertissement la mais nit ki si tamit man sama man ni ma toll maa ngi posé cent ñaata cent huit kilos yow kii di posé cent quarante kilos yow man dama war a ñëw bëreeg moom nii non non man nii laa bëreeg moom parce que si ay falaam kese laa ko mën a jaar mais loolu laa def def naa lépp nag moom tamit def na lépp loo xamante ne moom loolu la gëm loolu la mën waaw fii la mujjee nag mais dama la ne man ba suba man gëwuma ne dama daanu man loolu laa la wax. waaw mais li CNG joxe moom man loolu sama diggante man ak CNG la man CNG nangalu ma leen laa wax mais lu ñu jox Lac de Guiers man Lac de loolu bañalu ma ko loolu waaw yàlla nekk lu ko jig nekk lu gën si moom quoi waaw. waaw parce que parce que li nekk foofu mooy dafa am lu bari loo xamante ne dafa nekk ci man am lu bari loo xamante ne moom peut-être moom dafa nekk ci ci Ladeguère mais man peut-être loolu laa feeñal rek voilà parce que yow ñu bari jàppoon nañ ne moom moo gën a compliqué bëre voilà mais man dama wone foofu moom compliqué lu bëre man bëre bi maanaam man xaajuma bay jeexal. man li ma doon for pour man maa ngi doon for si prolongation parce que lamb ji loolu moo nekkoon yoon temps boobu ñu bëree ak bëri bu rafet boobu ñu bëree ñun dañoo waroon a dem prolongation yeneen cinq minutes parce que loolu moo nekkoon normal ah foofu nga doon xamee ñi pare ak ñi parewul waaw parce que ñëpp xam nañu ne Lac de pare na voilà ñëpp boo ko seede Sénégal ñëpp man grand place bu ma mos a romb dañ ma naa ma Lac de Guiers dalay lem dalay mais damay reetaan rek ree rek xam li ma xam toog parce que Mm-hmm. non foofu noonu rek laa mën a bëreeg lan de guerre te bi ma jàppee tamit action yi ma def foofu rek laa mën a yem ci action waaw foofu laa mën a yem foofu laa mën a def kon li des yàlla moom moo moom yàlla tamit lépp lu mu def mënoo si dara waaw mais man CNG CNG CNG maanaam taxawaay bu ñu taxawee man ànduma ci waaw parce que lu tax ànduma ci mooy affaire bi dafa waroon a dem bëre bu rafet boobu ñu bëre bëre bu rafet boobu ñu bëre man ak Lac de Guiers ak man ak moom nu ñu joxee lamb jooj dafa waroon a dem prolongation mais waruloon a jeexee si avertissement yoo xamante ne am lu ma la parce que man li ma am avertissement bi mu am ba génn mais faa nga génn parce que ki may bëreel waaw gis nga ko lu mu toll déplacement kese laa mën a jox laa bëre ba noonu kese laa mën a bëre moom leneen keneen ku la wax defal loolu kooku amul xam-xam ay waxi boppam la lay wax mais xam-xam lu mu man manipuler kese laa mën te manipuler naa ko ba fi mu manipuler yem mais li des moom xëy na moom loolu moom la moom noonu lay ñëwee man nangul naa ko lool parce que ku dugg sa biir bëreeg yow non kooku def na lépp waaw man lépp lu ma war a def def naa ko foofu laa mën a yem waaw.